Ndeysaan ñaari mbër yaa ngoongu ci géew bi Pablo am na lu mu jox Gandia walla wala Gandia ko ko jox da koy jël aka yàgg ak moom Sarr loolu cey njom Omar demal ma ci Gandia Fama ak Ndoye Ndoye mi naan sabi mu ngi waxak ak moom Ndoye bu Pikine Ndoye tay si nga bul faale kookoy Gandia Fama taxaw ak Pablo cey lamb gàncax ngay sotte ko gàncax ngay sotte ko eh bu leen laalante xayta bu leen laalante te arbitre bi da koy bañ loi bi da koy bañ Cheikh Omar li nga ba gauche bari na xaw ma droite cey làmb cey làmb sunu cosaan la ñu ngi leen di seet xayta ñu ngi koy seet gàncax ci côté saaku bi. cey lamb cey lamb suuf la na war combat ba ak Xayta arbitre suuf la na combat bi Gandia leen woon ginnaaw moo nekk Xayta ngeen jàkkaar lool moo nekk à gauche ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo boo xoolee mbëri simple yi baat bi soufflé ba tey combat bu ñu leen jox daan nañ benn dong lañ ci ñàkk ki ko ñàkk mooy CFA. arbitre woowaat na leen ñu nga cële xeex hey kañ dang koy dóor ganja ak senegal, Sénégal wala ganja bob, ak khayta ganja khayta, ganja khayta, ganja khayta, ganja khayta, khayta ganja moytul loxo bi gën de moytul loxo bi gen hey la ilaha illallah ah day jël avertissement de xayta da nga jël avertissement ah way benn avertissement da ngaa génn la wax soufflé na l'enfant de Bitanti Gandia Fama Xayta jël na ko eh Gandia jël na ko loolu la bëggoon waaye Xayta bañ na de da koy nooju Gandia moytul xayta mbaa duñ la yëkkati dañ lay sukkër bi ah, a way da lay daan da lay daan da lay daan xool waa Bitenti yi xool waa Kër Gànja Faama yi xool waa Bitenti yi xool waa Bitenti yi xoolal ma waa Bitenti yi xool ma waa Bitenti yi وبت... لا اله الا الله شيخ Gandia Fama def na affaire doole yi bokkul mbër mbër ci loone am nga jàmm ça va seetaan sa tur ah tur bi booy fisal yow yaa njëkk a bëre yaakaar naa de non maa demoon deuxième combat waaw yaa daan de waaw maa daan waaw ayoo waa fisal mbaa daan ah, gis nga waa Visel mobilisation bi ma indi te mënuñoo am combat mënuñoo am combat bu normal parce que ñi ngay ñu ñuy boole nii xam nga ne duñ seen morom. ñi leen di jox dafa kii ci ci yéen daal. non du du lu ñu arrangé parce que doo bëre mooy loolu wóor na alxuraan bilaa walaay doo bëre ah. adversaire baax ngeen bëgg daal. dañoo mën ta jot suñuy morom ku ci mel ni ñoom Ada Fass ah ñoom Tapha Mbeur ño ñoom ñoom kii nuñ koy waxati Talfa. ñooñu lañ mën a bëree barke alxuraan bilaay walaay ñun bokk nañ ci xale yi njëkk a dakaar Dakar fii poids léger Dakar kon nag mooy loolu. mooy booy Fissel. ndeysaan biram bisin biram bisin waaw daa waram combat waaw mooy waram combat ganja ma mën a bëre Babacar dama mën a bëre barke alquranu karim am nga waaje daf ma woone daf ma dóor dóor naa ko ay coup barke alquranu karim dama gis nga xeex ak moom voilà Babacar man bañkat laa barki alquran garam bañkat la yaram bi lu muy laaj seram lu muy laaj. man man combat bi dama ko jox comme par exemple rek nañ ma jox sama morom yi du mak ñi comme ñan ñan ñoy sama. alquranu karim. kuy sama morom. ñom Ba Baye Ma Ndiaye bu Ceeja waaye ñom Luis ñago man ñom la wara a ma sama bop barki alquranu karim. sey lolu Baye Ma Ndiaye la wax wala Luis ñago Luis ñago nak amna combat Baye Ma Ndiaye na combat. ndaysaan yéen a ngi ah, yéen a ngi si Dakaractu xool ma Cheikh Omar Cheikh Tidiane Niang Cheikh a ngi nii Cheikh Omar Bamba Thiam naa la ndeysaan Faye Mbodj Faye lay ziar Ndiaye mais Ndiaye